ETDR Events vous présente le 14 janvier, fils de Bala Lacrosse, drapeau Ousmane Sakaljen, maire de Sakal, Réunion Tchatouyov, drapeau Ahmadou Bambassar, directeur général de l'artisanat. Deux grandes affiches, une même journée, ETDR Events, le 14 janvier, sponsor officiel, établissement Toubadar Rahmar, Junou Rola, Toubadar Salam Karo, Tampico, Huile Global Textile, Kir Arab Business. jërëjëf mbokk yi am mbégte kontaante bu baax a baax pour ñu ñuy suivre ci ETDR Média di leen nuyu saa comme fi ñu ko tàmbali ko nuyoo rek di leen toppal lépp lu nga xamante ni mooy làmb wala mooy actualité te papa Père Diaw nee la lati Diaw ma jaw xoor fara Diaw ma jaw xoor nee ko kooku sëtu Yoro Boly Diaw la kon su baaxee daa war a baax moom la seetiwaat nag waxtaan ak moom làmb yi nga xamante bi génn nañ ko ndax dafa am combat bu xawoon na jaaxal ñu bari muy entre Modou Lo ak ki nga xam ne mooy Boy Niang waaye lu jiitu loolu turandoom di Jaw 2 na fi combat bu rëy euh, daan ki nga xam ne mooy Boy Naar Fall muy combat bu nga xamante ne bii combat amoon solo la waaye tamit kii di Mbaye Jaw doom Souleymane Jaw tamit yooyu yëpp bëgg na ci ñu wax si dañ koy nuyu bàyyi ko mu nuyu ñu su ko defee ñu wat waxtaan bi Père Jaw maa ngi leen nuyu de la siyaar waaw sama doom ji suma jarbaat bi doomu ngi lay fay Cheikh mm-hmm. sant yàlla julli ci yonent bi sant suñ ñaari waajur di gërëm Maodo suma sëriñ di gërëm Alaaji Malick di ñaan yàlla yàlla yokk seen leer di ñaanal sëriñ Babacar Si yàlla yàlla yokk leeram di ñaanal waa Tivaouane yëpp di ñaanal waa Touba di ñaanal Layeen yi ñaseen yi canaba canaba yi maa ngi ñaanal tarix yi yëpp di ñaan bay ñaanal chrétien yi di wax rek ni Thierre kontaanati naa ndax ñun làmb la ñuy dund te weekend bi làmb yu mag a mag moo ci am muy bërk démb suma trondoo moo doon bëree ak euh, mbër mi waay Rambo euh, sëñ Modou ñaa doomam njaga ñaa tëggoon ko ci gërëm nag Pape Diagne Seras ci gërëm ndóoy di ci gërëm staff sëñ Modou ñaa yëpp di ci ñaanal soxna sëñ Fallou sëñ Fall na fi Fallou Fall ah? xam ni kóllëre sëñ Modou ñaa la mm-hmm. bi sëñ Modou ñaa nekkee ci àdduna da ko doon tuddi ay bis mm-hmm. bi yàlla dogalee li muy dogal te di ñaan yàlla sëñ Modou yal yàlla jéggal ko ba tey njaga taxaw taxawaayu baayam mm-hmm. tëgg làmb ju boole Jaw 2 ak euh, Rambo. Rambo Rambo defoon neuf sorties mas sa am defet mhm. ñuy sama ñaari doom ñu bëri combat bu neex Jaw 2 daan ko jël bu rëy. Mhm. le premier janvier sama doom bëriwaat. waaw Mbay Jaw Mbay Jaw di doomu Souleymane Jaw mhm. di suma doom bi mu jógee waalo ba léegi ci man la ne. moom tam mu ñëw bëre bëre bu rëy. daan jël bu rëy. kon maanaam weekend bii weekend bu neex ci man la ñu dellu diggante Modou ak Boy Niang ñu teeloon ma laaj Père jaw làmb ji nan la demee ma ni leen du ma nëbbatu mm-hmm. man Modou Lo laa faral mm-hmm. ndax noo bokk sëñ Babacar si mm-hmm. yàlla mi dara ñu daje le premier janvier Modou Lo daan ko jël bu rëy kon weekend bi weekend bu neex ci man la. ceer ba ma laaj ma leneen. papa ba ma laaj leneen tey balaa may ñëw ci Modou Lo ak nga xam mooy euh, Boy Niang waaye kii sa turandoo di Diaw 2 xale bi ndax nga gisee euh, avenir am ak carrière ak combat bi nga xam tamit jóge na ko euh, ndax boo xoolee kenn mu doon bëreel ndaanaan la muy Rambo tegle ay victoire yu bari mësul dégg mu ñël tey Diaw xeetu bëre bi mu bëreeg moom ma daan ko tey. waaw maanaam may wax rek Pape mhm. bàyyi xel Diaw jaw mbër waad la mhm. def na douze sorties kéwél a daan waaw ñaari défaite la am ñaari la am am na dix victoire mhm. école de lutte Balla Gaye bii mhm. mbër yi fi nekk bàyyi nuñ ko xel mais may gërëm waa Kër Massar ndax keroog ñëw nañu may gërëm waa Géejawaay mooy fii ci jàppoo saam jàppoo saam ci dibiteri ma jëmb ko ñu Adama Ngom. waaw. Euh, fa la jaww de dëkk. Mhm. may dellu di gërëm Adama Ngom bu baax ndax taxawu na jaww de. njabootam taxawu nañ ko. Mhm. keroog liñ ko tëggal ci stade bii. Mhm. dafa mel ni Balla Gaye muy bëri. may gërëm Laye Dia. Laye di gërëm xaritu jaww de yëpp. bu ma limee damay juum. mais Ablaye Dia mi nga xam ni mooy waajuram. di gërëm yaayu jaww de. di gërëm ay frères jaww di gërëm ay supporteurs am. Mhm. di wax ni keroog bég nañu bu baax a baax. Jaw mhm. 2. waaw Pape Diagne bu bëggee am ku mel ni Balla gay 2. waaw ci làmb ji. Mhm. na topp Jaw 2. na jàppale Jaw 2. la. du liñ ma tuddee tax xëy na nag sama coono ci làmb. dëgg la yàlla nar a fay ci Jaw 2. Mbay Jaw. ak Jaw 2 ak Jackson. ak xale yi nekk Géejawaay yëpp. waaw ba ci doomu Daouda Fall nga xam ne sama dooma. waaw ca Daouda Fall limee damay juum. li ma naq di woon. ci jamono yii passé nga xam ne Balla Gaye bégal na ma mbégte gu ne. Mm-hmm. li ma naq di woon ci géejaway. waaw léegi xale yooyu faj ko. ba ma laaj ma leneen. ba ma laaja leneen tey Diawda foo jàpp ne mooy adversaire am Bracel ci fan la war a jëm. waa may gërëm Pape Diagne Seras rek ndax defal na ko bëreeloo na ko ñetti grand combat bëree na ñaar tëngeej. waaw bëree na fii ci arène nationale. Mm-hmm. mbooloo nag. ku yàgg bëri di daan. Mm-hmm. di nga am fu ne supporter. la. jaw doo du yàgg dara ñu xàmme ko. Mhm. mais nag mënuma bañ a bañ a gërëm Pape Diagne Seras. waaw surtout saxam Pape Diagne Seras. Mhm. suma xarit la. dëgg la Pape Diagne li ñu boole du làmb. Mhm. mu nekk nit ku laa biir. Pape daal ni ma jàpp Abdoulaye Ndiaye laa jàppee Pape mu nekk nit ku baax. ma koy ñaan rek. mu nangu ni jaw doo mbër la. su bëggee xam ni mbër la day dem toog ak Balla Gaye numéro 2. ak Balla Gaye 2. ni ko Balla Gaye 2 kan mooy jaw doo. kan de lutte bii. amul benn moromam bu ko man ndax toog naan sama turandoo ma mën ci école bi te jaboote ñëpp loolu wax ju yàqu dëgg la dëgg la mais xale yi ci école ba mm-hmm. caatu daaw de Fall mm-hmm. ñoom gàkku doo maa ngi gërëm gàkku doo nag di gërëm Lamine Golo Lamine Golo coach di gërëm mbës mm-hmm. di gërëm entraîneur Mbay Jaw waaw euh, tur fàtte Elage Elage Elage nag na ko ñëpp ñaanal ndax Elage moom mooy Géejawaay bu école de lutte Balla Gaye xewlee dafay mel ni fa la ne. mu ñëw taxaw. Mor Fadam noonu. Mm-hmm. barke Demba Diaw de. Mm-hmm. El ko taxaw moog Lamine Golo ak Mbës ñu réglal ko combat bi mu sonn ci tëb. Mm-hmm. kon El Hadj ñu ngi lay ñaanal. te di la wax ni géejooy bàyyi nañ la xel. kon lu xew la rek. lu xew rek. na nga jox xam ni ñun lanu mënoon mënatuñ ku dëgg la laas daal kontaan naa ci yow. kontaan naa ci Lamine. kontaan naa ci Mbës. kontaan naa ci Gàkku. ci Gàkku kontaan ci Garga Deux. kontaan ci mbir yi ñëwoon yëpp kontaan ci njabootu aadama ngam ñu ñu taxawoo jaw te jaw nak mënu dëkk ci sabar yi ba pari mbir yi ñu ko bëgg a dégg galañ dégg galañ mënu na nekk al dénk na ko per aadama ngam ak njabootam ba ci kanam ba ci kanam amna solo bala ma ñëw ci mbay jaw nag tey dañu gën ci premier ci premier janvier mhm. muy tat bu nga xamante bi lamb yag na ko dund yag lamb yag na ko am muy premier janvier 25 décembre 31 décembre premier janvier biñu ñu nak doxon ci digënté modlo le roi de arènes ak boy ñang ciapacule gi mu ne combat bu nga xamanteni bi combat royal na do nga xaar ñu gis avant combat bi nga communiquer genn wone fi nga far moy ko tay modlo nga ñaanal ndam tay père jaw sa digënté ak modlo lan la ba tax tay nga taxaw devant public ñepp taxaw nga ni modlo nga ñaanal ndam ci digënté ak boy ñang lan la wa xam nga modlo ak ballagay bi ñu démarré wa té doon dajé ci mbapat yi té mësu ñoo bëré wa bobu modlo mi ngi double les ak ñom Elton waaw ak ñoom Sa Kajoor. waaw boobaat Balla Gaye di bindu beneen zone. waaw Modou Lo bindu beneen zone bindu loolu waaw. Modou Lo nag Serigne Babacar Sy moo ñu boole. radiyallahu anhu ak ku ñuy wax seex Teranga. seex Teranga. bëgg naa heure boo demee ci Modou Lo. waaw Cheikh Teranga bu Guédiawaye. bu Guédiawaye nga laaj ko. waaw waaw Modou kan mooy Cheikh Teranga. Mhm. carrière u Modou Lo. def ci participer. ndeysaan da bi njëkk di entraîner Cheikh Teranga. Mhm. Oh, bi entraîné Modou Lo eh, Modou Lo Cheikh Teranga moo ko doon fay su ko fayulee xaritu Cheikh Teranga la woon hmm. ndax hôtel Teranga la doon liggéeyee te Cheikh moo doon patron ndeysaan Cheikh nekk xaritu Modou hmm. bi muy takk jabar Modou Lo ñëw na bi muy ngénte Modou ñëw na ñu séq moom Modou Lo lu bare ay relation yu bare dañu dem ba tollu tolluwaay boo xam ni hmm. Modou Lo dafa xat Cheikh xat mais Modou Lo nag bi mu duggee sama biir kër ñu ni Modou ak Balla Gaye ñooy bëre ci laa won Modou Lo ginnaaw. Hmm. mais képp ku Modou di bëreel. te du waa Géejawaay. Hmm. man Modou laay faral. Hmm. ndax man Maodo laa gëm. waaw ñaareel bi booy ñaar daan saa Thiès. waaw daan Balla Gaye. kon bu daanee sama doom yi nga xam samay doom yi lañu. samay doom yi ak ni mu daanee Balla Gaye. mais booy ñaar ku ni ko père Diaw dafa far yow sax. loolu waru ko gëm. mais kon yéen naqar ba bëleeg bàyyi wu leen de. naqar yi bàyyi nañu keroog bi nga xamee ni <laughs> keroog bi nga xamee ni. waaw booy ñaa. waaw daan na Modou Lo. daan na booy ñaa na booy ñaa. waaw keroog naqar yi keroog la jóge ci sama xol. sa xol mais depuis booy ñaa daan Balla Gaye. damay sportif nag. te ku déglu sama kàddu gi. waaw jàppeel ni sportif bu mag mooy wax. en réalité daal. Modou Lo ci sama njaboot la bokk. waaw yàlla dogal na daan na Sa Thiès. Mhm. daan Balla Gaye. waaw ñëw. Dan Boy Dan daan Boy Niang. la ma waxoon nit. waaw bëggoon naa nga poser ma question. waaw ci seen xeetu bëri. Ah, waaw parce que euh, na foo defee benn sorte muy des sport. des sport voilà des sport. merci yow ak Zalba. merci. Euh, na noo fa déggee waaw. man ak Lac de Guiers. waaw ak. Euh, l'an 2000 l'an 2000 ñoo def émission bi ak Zalba ak Zalba. tey li nga décortiqué ci avant combat bi yëpp dafa mel ni Modou Lo dafa dégg sa euh, sa communication ci avant combat bi. moo tax mu ñëw bëree loolu. waaw non non li muy def. waaw la mbër yi war a def. muy. xëy na su ko Balla Gaye déggee dana mer. su ko guy gi déggee dana mer. mbër yi àndoon ak Modou ci làmb. waaw nii mu gardé lii ñam. Mhm. ñun dañu bëgg. Balla Gaye mu ngi góor waaw te mbër. Mhm. soo ko bëggee da nga koy dëgg. man lii may wax. Mhm. xëy na su ma ko waxee ci micro. waaw dina am nit ku ni mais Père Diaw lan moo tax mu wax lii ci. wax li dëgg la. Mhm. Balla bu mu ni dafa am roi des arènes rek. waaw. dogal roi des arènes bi jóge ci loxoom rek. Mhm. Balla Gaye mel ni ku doyal ci làmb. dëgg ndax Géejawaay. Waalo. Casamance à travers le monde. ay supporteru Balla Gaye ñu ngi ci àdduna bi nekk ci réseau yi. Mhm. kon du Balla Gaye ci boppam. waaw moom la. mais mhm. Balla Gaye dafa war a bàyyi xel. ay supporteram ñii sonn ci moom. ñii sonn ci moom. Mhm. yàlla dogal géej gi nekk fii ci wetam. waaw école de lutte Balla nekk fii. dëgg la teraanga bu mu am bëree moo may. kon dama bëgg Balla Gaye takkaan ndiggam. waaw bu trois heures bu jog bu quatre yi mu ñëw dugg ci biir école bi.

Euh, ba liggéey fa ba ñëw. waaw ba jëlee fa ligne bi ñu bëgg ñun. Mm-hmm. état bi ñu bëgg. Mm-hmm. lu mën a xew. waaw dootuñu seetaan ba Balla Gaye ñàkk loolu. ñàkk loolu. Modou Lo mu def. waaw non mais Modou il est excellent tiers. waaw Modou Lo jaaxal na gars père parce que ñaari combat yu génn moom ak buy ñëw ci làmb melakaan bu muy indi jommal na nit ñi mais xeetu bëre bi mu rek Boy Niang. non dama lay wax ni tey ñëpp yaakaaroon tey euh, Boy Niang day xaar Modou mu la songu ji ko mais par la suite Boy Niang mo dem songu ji Modou Lo. de waaw. avant ngay wax bëre bi. waaw da ngay wax état de physique bi. état de physique bi waaw. ak Modou ni mu téye encadrement wu. waaw. Mhm. Modou daal. Mhm. et ni mu jëlee làmb. wane ni métier la bu liggéeyee ba wàcc. Mhm. day jëf jëf yi koo xam ne dafa di mun ci métier am. bi mu daanee fan yëpp jàllaabe yi muy sol est-ce que jar na deux mille cinq cent. déedéet déedéet. ah <laughs> waaw. Modou Lo est-ce que ci communication. waaw Modou Lo yàlla xañu ko. amul benn mbër bu ko gën a tedd ci làmb. dëgg la dëgg la. am na roi des arènes. Mhm. am na ay moyens yi Balla Gaye am. waaw tey Balla Gaye ak Modou Lo ak Eumeu Sène. Mhm. nekk nañu mbër yoo xam ni bokk ñu mbër yi gën a yëkkati ko. dëgg la mais Modou Lo philosophie bi muy dundee actuellement mi ngi jàngal mbër yi làmb. mi ngi jàngal mbër yi làmb. ok parce que ma laajee des mhm. ni leen Modou Lo ak Boy Niang bu ñu taxawee. Modou Lo ma ngi yem ci loosu Boy Niang. waaw waaw kon bu ndaw la ko sutee. la ko sutee waaw. te bëree mu ngi jeexi ci un ci un te booy ñaa. Hmm. tagg bii ñu ko bëgg a tagg. waaw am na lu mu fi def. waaw man nag bàyyiwuma ba tey may wax. waaw avant muy bëre laa ni liñ ko bëgg a jiiñ. waaw pour ñu jiiñ ko man nangu ko. Hmm. pour li mu doon ëpp roi des arènes. waaw day daan Modou Lo. daan Modou Lo. ñu ne ma tax. waaw man leen bu daanee Sa waaw daan Balla Gaye. waaw daan Modou Lo. waaw waaye mi ngi def test ci Modou ci Modou te Balla Gaye mi bëri woon ak Boy Niang. Mm-hmm. saltee lu ñu de. Mm-hmm. mais du Balla Gaye pire. Mm-hmm. barke El Hadj Malick. Balla Gaye mu pare. waaw nekk ko topp. non en réalité daaneel ko yombul. daaneel ko yombul kon nag. bi mu bëreeg Sa Thiès. waaw Sa Thiès a ngi topp Boy ñaa nekk topp. mais Boy Niang bi muy bëreeg Balla Gaye. waaw Balla Gaye nekkul topp. ndax Balla gay ba ñu yàq làmb. moo waral bi mu ñëwee ba làmb ci. genome yi. dañ doon xolli ñun élastro biñ ci def di ko nëbb. ci jour combat bi. jour combat bi su fekkee ni doole ji Aziz Ndiaye am ci Balla Gaye laa amoon. Mhm. dama naan ko bu arbitre soufflé bu la booy ñaar toppee boo jégee talal sa loxo. Mhm. bu arbitre ñëwee nga ne da nga ja gaañu boo demee ci médecin bi mu contrôler làmb ji yem fa. ok dafa nekk garmi mbër. waaw jàmbaar la de. mais Balla Gaye maa ngi lay ñaan en tant que man père Diaw. Mhm. defal nga nu lenn ci làmb. wàccoo nga ak ñun jox bu ne. mais dama lay wax ni ñun yow rek la ñuy topp. Mhm. Balla. waaw su fekkee ni yaa ngi ci réew mi di seetaan lii. Mhm. nga ne sa papa nee na. waaw sa papa Diaw. waaw nga góor nga góorgóorlu. Mhm. foo mën a nekk. waaw na nga góorgóorlu xam ne làmb ji. desal nga ci quinze ans. làmb ji bu la neexee nga desal ci dix ans. dix ans làmb ji bu la neexee nga desal ci huit ans. kon Balla na nga nu dimbali. nga entraîné xam ni bëree yàlla la jàngal bëri. la. teral nga nu mhm. lépp noo déggee sama wax rek wala keneen dégg ko di supporteru Balla Gaye rek mhm. na xam ni nit gënumaa bëgg Balla Gaye ñaara ma gën a bëgg Sadio mi yaayam waaw ak Dubalees mi baayam Dubalees jóge na fi mhm. ñun ñooy waajuram mu góor góor lu xam ne ñu ko bëggoon ñu ngi toog di ko topp ba léegi ba léegi mu lu ci làmb ma dellu nag ci combat Modou Lo ak Boy Niang waaw Modou Lo excellent il actuellement mbër mbër yu bëri ñu ngi veillé ci Modou dëgg la waaw yi mi ngi yee mbër yu bari nag. à cause de contre mook Ama Balde. dafa ñëw indi physique. waaw mais doole ja des. doole ja des. yàlla dimbali ko. Mm-hmm. Ama di jàmbaar. arrièreul Modou Lo arrière ñu daje bëri mu daan ko ñu yaakaar ni Modou dafa for lool ci Ama Balde. Mm-hmm. booy jaa dem entraîné ànd ak sa patron kañ. waaw ak frère Kandji bi Moustapha Kandji Moustapha Kandji waaw ñu ay boroomi bopp mm-hmm. booy ñaar fu mu egg ci làmb na ko na sant ñaar ñoom man waxuma waa Pikine waaw non non non non mm-hmm. Dégol moo jur waaw Mansour moo jur mm-hmm. Bourkhane moo jur booy ñaar doomu Pikine la mais entre Kandji ak ak euh, Moustapha Kandji ak Moustapha Kandji waaw ku ne bëgg na leen am ak seen grand frère Abdou Kandji kànji bi ñuy jël booy ñaa mm-hmm. boobu kenn bëggul booy ñaa dëgg ñu di ko jàppale di ko puus di ko xelal naan ko tegal fii sa tànk mm-hmm. bul teg fii sa tànk tegal fii sa tànk ba booy ñaa egsi fi mu war a egsi mm-hmm. parce démb ma dégg koo xam ni man du ma tudd trop wax naa benn bis ci benn chute mi leen waaw moom dafa jànge làmb Hong Kong wala London wala France wala Allemagne moom fii la juddoo yaroo fi di xale bu ndaw ay atam barewul mhm. mu ñëw fekk nit ñi ci làmb ji bëgg leen woon ni xamu leen dara lu ne mu dugg ci kookal la tudd turam man damay léeb reporter la ma ni xaayaan ku dégg séeréer du ma ah. ki may dégg dégg na ma waaw lu toll ni làmb mbir bëri ba pare mhm. nga naan ko dañ dañ leen infiltré infiltré ah loolu waaw waaw waaw waaw parce que mi démb tamit débat ci doy na nekkuma ci ben débat man borom xali lay waxal. waaw dama xam ni kanji limu mu def. waaw yi mu ñak ci Boy ñam waaw waaw Abdou kanji ñak ko ci. Uh-huh. magam euh, frère am ñàkk ko ci. Mm-hmm. mu daj ci lu nek mm-hmm. amul lu ñu wax lu dañ leena infiltrer infiltrer waaw. modlo man na daan ku duy bo ku duy Boy ñu boy ñaa wa lay walaay la. te Boy ñaa ci am mille sens. Uh-huh. wallahi azim. Mm-hmm. biñu xexé modlo Modou da ko doon dóor mu daanu. da ko doon dóor waaw. lamb ji naan Modou Lo euh, ku euh, Boy Niang di ko dóor ku non non ku Boy Niang benn dalu ci bu hmm. ci grand s'il vous plaît nga baal ma tuuti hmm. man man nag maa ñëw plein air di waxtaan maa ngi jéggalu <laughs> tey de moom tam dafa am yëg-yëg ma rek benn coup hmm. moo dal Modou Lo mais Modou dafa nekk professionnel xamul tax Boy Niang il faut ñu nangu ni ay entraîneur am nañu changé booy ñaar droite bi di dal gauche bi di dal. ok ñaar benn loxo lay bëree. muy moo tax bi ma demee des sport. waaw ah. man leen bu ma yoroon Modou loxo gauche Modou Lo day tiim braaw booy ñaar. braaw ndax loxo trois routes la mhm. bi ci mbagg mi bii ci digg bi. ak tibu jara bi moo tax Modou Lo dafa tiim booy ñaar. Mhm. ci droitam tëj ko tëj ko. xeex ak moom mhm. am na ñaari laaw yoo xam ne bu ko bu ko daloon ñaari laaw yi mu ko sànni booy ñaa wàcc jël bu ko daloon booy ñaa day daanu mais booy ñaa dafa ku ni kaawul mhm. da ngay jéem a réparé ok booy ñaa kaawoo ñëw di noppalu avant miir mi di jeex Modou Lo jëtt ko ndax loos mooy bëre mu mhm. pincé bopp ba yëtu ngemb la képp ku ci bopp mu bëgg fuddu bàyyi ko mu jóg mu mu delloo ko ànd ak moom comme ni Balla Gaye euh, ni booña daanoon Balla Gaye kon nag ni mu delloowee ni mu daane Balla Gaye sunu borom dimbali nañu. waaw ah. <laughs> Modou Lo daane ko noonu. te doomu aadama nag day far. day far man damaa far. mais man nag li ma jaaxal Modou Lo combat bi daa bëri ay coalition yu ko jàppale. coalition mooy coalition Géejawaay Géejawaay Géejawaay dañoo def coalition. non non ndax père gis naa la gis naa fi Lirou Diane ngeen taxaw Ousseynie Modou Lo ngeen faral. ma gis sëriñ si ñu si bëri def coalition ànd jàppale Modou Lo. Thier waaw. coalition amul. Ah. xam nga coalition mooy ñu booloo. man bi ma demee ca làmb ja may gërëm suma doom ji hmm. suma lépp doomu Gaston Mbengue ji Makan Mbengue Makan moo teral ndeysaan Makan moo ma sagal hmm. Makan moo ma yëg xam ni maag bàyyam ma bokkate bàyyam la Makan hmm. li ma Baye Ndiaye di defal rek la may defal lay defal ndeysaan bi ñaar fukki la jël ak suma bracelet jox ma defal mu lu mu defalul kenn fekk ma ci loose bi ma toog mu toog ci man ndeysaan déggoo ma de waaw ak ak fi jour combat bi toll fi làmb ji toll ak puissance su làmb ji waaw màkkan mbeng la ma Aziz Ndiaye defaloon ci combat bi passé ñëw toog ci man ba làmb ji jeex moom la ma màkkan mbeng mbeng defal kon gars yi nañu xam ni mm-hmm. man ñiy gérer làmb ji ñooñu ñoo may dund dëgg la muy entre Baye Ndiaye <laughs> ah. màkkan mbeng mm-hmm. Abdoulaye Ndiaye ba ci famille ñoom Kandji waaw ci promoteur bi sant Ndiaye la waaw ah, non non Fallou Ndiaye Fallou Ndiaye. Fallou noonu la may def waaw waaw waaw. su amee lamb. Ah. day jël cag cag jox ko billet. ndeysaan wala mu woo ma ni ma père Diaw sa billet ngi tel béréb. Ah, ah. kon presque mën naa ñaanal promoteur yëpp. la mais makkat maa ngi lay gërëm. Mhm. maa ngi lay ñaanal. maa ngi ñaanal Abdoulaye Ndiaye coalition amul. amul man maa wax ci site internet nii. waaw ci géejaway Balla Gaye euh, Modou Lo la ñu faral. la ñu faral. ndax Modou Lo Boy Niang moo daan Sa Thiès. mais daan Balla Gaye mais géejaway képp ku bëgg Balla Gaye kër Modou Lo nga faral man nag maa ni fàng ni jant. waaw ah, te nag ci cadre sport rek laa ko yemale. ragaloo ci dara. non ragal dara amu ci. waaw Boy Niang suma doom la. après tout lii may wax. waaw dafa kànji ak booy Niang ak papa mi yëg ko gisee. dañu xam ni jaw dafa sincère. ak Mansour Diop sa xarit. Eh, non Mansour Diop moom. <laughs> bëgg naa ñëw ci moom. sa xarit la. wax ci moom. la may wax rek ni. Uh-huh. booy Niang jàmbaar la. jàmbaar la bu amul woon jàmbaar. Mm. Modou Lo da koy dóor mu daanu. mu daanu. képp ku ni danoo séddoo coup yi mhm. dégagé na bépp coup bu mu jàngi mhm. mais booy ñaa nañu ñu travaillé ñaari loxo yi waaw booy ñaa benn loxo rek la mooy joxe bëtu droite bi loxo droite bi tànk droite bi mooy joxe ci moom loxo gauche bi xam nga lu mu man seex seex tànk ndeyjoor bi xam nga lu mu mën cabaxal kon booy ñaa nañu dolliwaat tuuti bëre bi hmm. maa ngi koy ñaanal nag ëllëg mu doon roi des arènes maa ngi koy ñaanal Ama Baldé te di ñaan Pikine waaw wane làmb jàmm jeex na ci dëgg la lamb hmm. non non non non. jàmm jeex na ci. Boy ñaa waaw de Baldé. waaw jàmm am fa. dañuy nax nit ñi rek. Hmm. métier xaalis la. mais mais dañ dégg euh, Boy Niang mu ne moom ak Ama Baldé réeré ci dara ba jour lamb bi muy génn këram mi ngi déggante ak Ama Baldé. werante loolu. waaw du ma ci teggi dara. waaw il faut ñu gëm ni. Hmm. Boy Niang liy wërsëgëm ci àdduna. waaw. yàlla na yeex mm-hmm. lu mën a xew dana ci jot mm-hmm. Ama Baldé noonu ñu nekk ñaari mbër yu yu baax nag mm-hmm. mais dirigeant wu Pikine yi ak ñi leen encadré Pikine di fekk du ñu bëri seen biir lan moo leen tere ñu def ko ñaari écrit wala benn géejawaay lan tax du ñu bëri seen biir lan moo tere def ko ñaari écrit wala benn géejawaay am na lu ma juróomi école de lutte wala ay écrit waaw kon nag nañ ko jéem a xool def ko ñaar ñu jàppalante may wax ni waaw Boy Niang. Hmm. def na li mu war a def. waaw mais ki mu doon bëreel. waaw bala ñuy xam ne jàmbaar la. waaw xaaral ba mu am beneen adversaire. Hmm. ba bëreeg moom ba pare. Hmm. ci la ñuy xam ne booy ñaa jàmbaar la. waaw moo kii. Euh, doomu Faalaay ji. Ama Balde. Ama Balde. waaw ak Boy Niang. waaw su Modou Lo bëreewaatee beneen adversaire. waaw ci la ñuy xam seen jàmbaarte. Thierre ba nga laaj ma leneen. ba ma laaj leneen ginnaaw Modou Lo am na ndam nag. léegi nag coow lu bari na ñu ne Modou Lo fan jëm. ñii naan Tapha Tine ñii naan. day noppaliku ñi naan est-ce que du tournoi waat ci xale yi rëg-rëg genre yooyu koo jàpp ni muy dama dégg sax ku mel ni Xaadim Gajaga mu ni man nag seetaanuma ko waaw ma dégg mu ni rëg-rëg ak kan Sa Thiès waaw ak kan des na keneen de boo limee rek waaw boo limee foofu ma yem ñaar ñooñu laa jàpp waaw mais des na keneen rëg-rëg dama yaakaar ni Modou Lo mm-hmm. teraangay àdduna waaw rëg-rëg daf fi dara ah del waay père yemale foofu émission bi ah ci Bombardier la mujjee de. <laughs> combat boobu duma ma ci détail. doo ci détail man maa teeloon wax ni. <laughs> waaw Bombardier su mënul bëree. waaw waaw waaw waaw leer wala mu daan. na génne làmb ji. nu mu tudd. Reug Reug. Reug Reug. waaw na génn làmb ji. abal na làmb ji waaw loolu sa wax la li ñu def keroog. waaw mais loolu du làmb. Ah. képp kuy supporter Reug Reug dina ma sànni xeer. Eh. Reug Reug nag ku ñu du mbër. waaw iñaan. Mhm. mais Reug Reug. na bëreewaat ba ci kanam. ba ci kanam Modou hmm. bu joxee Sa Thiès. waaw bu ko jàppalee. pour ñu bëri. Hmm. c' est très ba hmm. su jëlee Tapha Tine. waaw c' ba très normal. Siteu. bu jëlee non du bëreeg Siteu. ndax ay goro gorom la. ah mais nag Massa Margane nee na nag promoteur yu bëri fi mu toll mu leen di woo ñu ngi leen di proposé ñu ngi waxtaan ci xaalis. dañoo déggoogul ci ay kàddu. waaw lenn de baa ngi la koy xamal. waaw diggante combat wu. Modou Lo. Modou Lo ak Siteu su taxawee. waaw man deewuma làmb ji. Hmm. du ma ko seetaan. ndax lan day nekk combine. non ma ci détail yi hmm. bu ñu bëree ñoom ñaar deewuma. Ah. am naa ci droit ci. waaw ku ci xuloo yow moom la laaj ma la dama day wax ni. waaw Reug Reug. Hmm. Modou bu fekkee ne amul staff. waaw ban naan Reug Reug moo Modou Lo ñooy bëree. man combat boobu deewuma. damoo ca làmb ja Modou loo nag. waaw Reug Reug nag. kenn mënul tere bu continuer ci làmb doon roi des arènes hmm. mais roi des arènes bi nañ koy teg ci aw yoon teg ko ci yoon làmb ci gën a yenu maana hmm. muy diggante Tapha Tine waaw ak Modou Lo ak Modou Lo daa mel moom la àdduna yëpp di coow de waxuma diggante Balla Gaye ak Modou Lo de waaw diggante Tapha Tine Tapha Tine ak Modou Lo ak su ca Modou Lo jógee nag Modou Lo waaw man su ma doon moom hmm. dinaa noppalu tuuti nag non récupéré tuuti 2024 bii ñu dugg waaw su may bëre ca fin ba fen bëri fin ba Modou Lo dafa war waaw ñaari combat yi mu génn daa metti ndax Modou Lo ay coono. Mm-hmm. moo nekk ci yaramam moo nekk ci yaramam. mais ci en réalité. Mm-hmm. li ma gën a neex ci moom. mooy ni mu téye njugo waaw Ndiougo Dia. ni mu téye Pape Mbaye. Pape Mbaye Koursu. ni mu téye As. As As Cissé. maa ngi dugg nag ci benn Serigne. waaw muy kan. Serigne Cissé bu Serigne Babacar waaw sama xarit bi kenn du moom. maa ngi wax ni Modou lépp lu mu am. waaw gannaaw yàlla ak yonent bi. Mhm. ak ñaari waajuram. Mhm. Serigne Babacar Seye. waaw waaw lu mu am. Mhm. gannaaw yàlla ak ak ñaari waajuram Serigne Babacar Seye la. waaw ñii di jéem a di wiiri wiiri naan lii laag. ndàngam la. ku ko wax waxoo dëgg. Modou taalibi Serigne Babacar Seye la. akkan akkan. Ababacar mbay lu mu am moo ko may. wallaay ndeysaan. Serigne Babacar Sy. dama ne keroog bi mu ñëwee bu ñu tudd ko Serigne Babacar Sy. man maa ngi woon ci tuus ma di seetaan. ndeysaan man naam sax buñ ma gisoon tuus ma. ni ma jógeel <laughs> waaye nag. Euh. Serigne Babacar Sy mu indi tiim Modou Lo. Hmm. dama bëgg. Hmm. Moustapha Gueye. waaw. jaar nañu fu ne. pour def ko leneen. Hmm. Moustapha Gueye bu faas. waaw Seydi Camille ko tuddee. waaye. Modou Lo ci tarix mm. dama bëgg détails yi affaire yi Modou Lo lii la Modou am na droit dem jàngi alxuraan Modou Lo na jàngi xam-xam mm-hmm. Modou Lo na topp tiineem mm-hmm. mais Modou waa Tiwaawan la ba nga laaj ma leneen ma laaj leneen am na solo daa mel kon papa waxtaan waxtaan bi li si ëppoon am na solo merci waa léegi Mbaye Diaw euh, waaw jóge na ci ndam de jóge na ci ndam lu mais nag dama jaaxal père euh, Mbaye Diaw yoon bi mi ngi bëgg a yeex te mu ngi teg la ay victoire lan moo tax mu ñu ko jox mbërë bu nit ñi xam waaw xam nga combat wu Gaston. bu ko ci màkkandee dugal. man moo ma gënal grand combat. Ah. te nag. waaw Mbaye Diaw lépp màkk na ko yor. man ci mhm. gannaaw rek laa ne. Mhm. lépp lu ko màkkan dégloo bu nekkoon demal bëreeg yaawu jaal. waaw Mbaye Diaw dem bëre jóg moom. maa ngi ñaanal yaayam. Mhm. yaayu Mbaye Diaw ca Waalo. waaw di ñaanal Souleymane Diaw mi jël Mbaye Diaw. xam ni may baayam mu jox ma ko di gërëm ñu mu bokkal ndey ak baay mm-hmm. di gërëm ay doomi baayam mm-hmm. di gërëm waa waalo di wax waa waalo dañu am ñetti mbër yu dëkk waalo leen waalo bàyyi xel muy caatu caatu Daawda Fall Daawda Fall Jackson Jackson ak Mbaye Jaw ak Mbaye Jaw ak bépp waalo waalo buy bëre te xaw ma la mm-hmm. waalo daal rafle woon nañu mbër mais jamono ñu ñëw dinañu am la Gaye am Lac de am Jackson Jackson nag waaw adversaire moom tamit. Jackson nag laajoo ma ci. waaw Jackson. mais bëgg naa ci wax tuuti. waa ñu ngi wax na digganteem ak Diène Kairé ñu ngi wax diggante mag bëri na daal. Jackson bu bëriwul ak eh, Franc. kon léegi kon Reug Reug bu mu ñaan bu mu laaj Modou fekkee ni Jackson amul droit laaj Reug waaw kon Reug laaj Modou Lo. làmb ji. kenn ku ne da ngay def ce soir. Mhm. Jackson dafa xeex ba egsi fi mu egsi nii rëg-rëg laajee Modou Lo maa ngi jéggul sax mhm. rëg-rëg mhm. maa ngi dellu di regretter li ma ni amul droit bëre Modou Lo rëg-rëg maa ngi liy jéggul loolu te ceer loolu bul ko dagg demal bëre jéeg Modou Lo ndax vraiment ku ne lu du mbër doo waxul dëgg ñaareel bi mooy caaro yi dañu bëgg roi des arènes comme ñëpp mhm. kon baat boobu ma waxoon ni rëg-rëg warta bëri Modou Lo maa ngi ñaan Modou Lo boo waree jël rëg-rëg nga jël ko mais nag Jackson na dem jëli rëg-rëg wala mu jëli franc bu ñooñu nangu mu dem jëli doom boy kayre bi kon maa ngi gàttal di wax ni Tapha Kandji mhm. maa ngi lay ñaanal di ñaanal Kandji di ñaanal seen mag mhm. te di wax ni booy ñaar li ma neex ci moom mooy mbër mu yaru la dëgg la Ama Balde li ma neex ci moom. Mhm. mooy mbër mu yaru la. Mhm. mais di wax Mansour Diop nag. waaw Mansour Diop vraiment su ma waxoon ba eggal. ndeysaan sa xarit bi te waxuma ci mën Diop. ndeysaan avant tout maa ngi gërëm Bekay Mbaye bu baax a baax. Mhm. alaaj Bekay. dagg lépp lu dagg loolu. dëgg la Bekay. Bekay mooy asgor. ndeysaan. Bekay mooy nit ku baax. dëgg la. Bekay moo jaboote ñëpp. Bekay du ma tàggoog di wax ci Bekay. barka démb bi Mbaye Diaw daanee. waaw may ñëw ci plateau bi. Mhm. dafa am ku ruube. waaw ku ruube wane ni. bu jaw yéeg ci plateau bi man namuma plateau. <laughs> Bécaye insisté ni ma jaw na Mbaye Diaw yéeg. ma insisté ni Bécaye maa ngi Mbaye Diaw a yéeg. ñoo ci baaxam. waaw ak rakku Modou Mbaye ji nu tudd. Pam Modou Pam Modou. baax yàlla na egg ni yoon. wallaay ku baax a ngi noonu. Pam Modou Mbaye. Mhm. Modou Mbaye. waaw. ak sama frère bi takk veer yi te nekk Bantamba TV. Baye Balla Mboup. Baye Balla Mboup. waaw ak sunu beneen frère bi takk veer yi rond yi. te di jàppale Baye Balla. Bamba Thiam. Bamba Thiam. waaw. Euh, Bantamba TV. maa ngi gërëm ñëpp. di gàttal suma kàddu. te di wax ni émission day am fu mu yem. Bégaay. daal. en réalité mooy kilifa ak ñëpp. man nag ay moroom lañu. Mhm. boo ma magee na wax ay atam wala du ñàkk ma woo ko téléphone. su fekkee ne moom ma mag ma naan ko grand frère. waaw mais Bécaye sama diggante yow. Eh, eh. bi ñuy ànd télévision amul. booba rajo am dëgg la maa ngi lay ñaanal nga mm. egg ni yoon. sama diggante yow diggante la boo xam ni. dara xeju ci yàlla yàlla def jàmm. ndeysaan def jàmm. Uh-huh. lépp lu ma fi wax. Uh-huh. mu ñaaw. man ma jéggal. Mm. te man Diop. waaw Mansour Diop daal nit ku baaxee ni Mansour Diop amul. wallaay amul Mansour Diop dégg naa waa Europe nii. Uh-huh. Bécaye na téye Mansour ndeysaan Mansour Diop li nga doon wax démb ci plateau bi. Hmm. loolu lañ mooy dëkk. dëgg la Mansour ñëpp yow la ñuy topp. ndeysaan Mansour maa ngi lay ñaanal. Hmm. Mansour nit ku baax yal na la yàlla suturaal. amiin papa jërëjëf kontaan naa ci yow papa jërëjëf. ETDR établissement Touba Darou Rahman di entreprise bu mag bu yëngu ci BTP travaux de bâtiment génie civil manam lépp lu jëm ci wàllum tabax kër réhabilité wala réfectionné dañu ciy taxaw ba mu établissement Touba Darou Rahman su la neexee mën nañ laa jox kaya gros œuvre ak second œuvre gros œuvre moi li ko ci fondation élevé tabakh houle ak raax ci second œuvre bi nag ci di électricité ak plomberie ETDR am nañu ay boutique

Établissement Touba Darou Rahman ñi cité Fadia villa numéro 250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 maanaam ETDR moom bàyyiwul dara moomeelu réew mi la établissement Touba Darou Rahman yéen doomi réew yéen la